ok bisimilah asalaamaaleykum ñu continuer deuxième partie bi ñaareelu xaaju formation archicat bi ñu ngi yemoon ci escalier yi ñu ngi moon ci étage un bi foofu la ñuy teg escalier bi après ñu wàcc wàccee ko ci suuf parce que ci étage un bi foofu la détail escalier yi yëpp daal di nekk léegi fii escalier yi nag dafa xaw a complexe tuuti parce que boo xoolee ci palier de repos bi nii dafa am benn marche bu nekk si digg bi donc est ce que lii bu amee ay affaires yoo xam ni euh, tàmm ñu ko gis rek yu xaw a complexe rek day jafe mën naa ni dina jafe ci ñi nga xam ne mosuñu def ARC4 wala defaguñ ko wala amuñu ci connaissance bu bu sori donc day soof ci ñoom lool sax moo tax bu mu demee fii 3D ma def ma njëkk a def escalier bi pour ngeen xool nan la war a mel lii dama doon def ay test waaw léegi escalier bi boo ba nii fii dafa am marche fii amaat marche moo tax yombul tamit nii mu lii ni mu ndaw ndaw ndaw ndaw nii jarul xeeb yombul léegi dama leen ni wan naka lañ koy defee waaw nga xam ne boo ko mënee sax xëy na di nga mën yi gën a yomb niveau de difficulté bi nag euh, soriwul trop nag waaye après ma wan leen escalier bu mel nii la moom la ñuy ñëw def léegi léegi damay delluwaat étage moom escalier bi dama koy jël ma déplacé ko du ma ko supprimer dama koy déplacé fii léegi ligne yu escalier yi moom laa jël ma lii ay ligne la mu nekkoon ligne yii nii yi jóge woon AutoCAD moom laay ñëw ma tracé ko ma ma ma copier ko fii léegi fii la ñuy jël ñu basé wu si ñu daal si tracé suñu escalier maa ngi enregistré parce que lii boo leen koy manipuler di leen enregistré projet bi ndax yenn saa mën na ah, logiciel mën na couper vidéo bi nag formation bi bëgg dina dañ koy continuer tey di ci sawar loolu di ci kontaan ndax damay gis sama yenn connaissance sama yenn xarit yu bari yoo xam ni gis naa ne que def nañ jéem nañ daal di def daal may wan fierté la ci man ñu wan ma mu neex ma lool loolu gën ma gën maa motiver pour ma continuer affaire yi di leen remercier voilà di leen remercier saa bu ma amee temps dinaa leen jàngal ay affaire gratuitement fii ci seen bi incha allah muy leer euh, léegi ñu dem ok damay dem ma fi dessin ma daal di jël escalier <clears throat> ok ma dugg tuuti ci paramètre escalier yi gis naa ni que volet bi largeur bi un gis dix la mais largeur u palier de repos bi moom un mètre la loolu dinañ ko gérer après léegi fii yomb na fii léegi du ma dugg ci détail yu bari nii yëpp hauteur marche bi dama koy kale damay bës fii entre zéro quinze ba dix huit centimètres léegi fii comme que escalier yi dafa xaw a complexe tuuti complexe wul mais xam naa dina jafe ci ñenn ñi du ma ko wax mu jógee ci étage bi jëm ci etage bi ci bi ci kawam dama koy wax flexible su ma ko waxee flexible waaye après dinaa ko mën a modifier mu gën a yomb ok flexible mooy loo xam ne dañ ko mën a xoolaat defaraat ko nu ñu neexee après ma def ok léegi damay ñëw fii ma xool ligne de base bi nii damay jël euh, fii bi droite parce que sama droite laay jàddee bu ma yéeg bu may yéeg sama droite laay jàddee ok après ma ñëw fii ma commencé bés benn ma yéeg di dem dem ba fi waaw kay fii laa war a jàddee ma daal di bés bësaat ma bàyyi léegi am na benn volet fii léegi marche bi moo tax dama arrêté léegi marche bi moo tax il faut ma gérer marche bi ko il faut ma gérer marche bi parce que fii laa war a jàddee sama droite ok jafewul damay ñëw fii ma bës fii bouton bi après ma jël continuer euh, l'escalier apare ma jàdd gis nga bu ma jàddee rek damay commencer defal ay marche léegi jaade naa ba fii parce que fii laa war a jàddaatee fii ma daal bës bësaat kay am naa benn marche fii normalement waroon naa ma a continuer directement après ma ñëwaat ma bësaat ci bouton bi fin bi voilà pour continuer gis ngeen damay tourner rek jàdd ñëw ba fii ba fi mooy yéexalee rek ma bës bësaat mu pare léegi fii un parce que ci paramètre euh, yi njëkk yi bi ma ñëwee bi ma bësee fii bi ma ñëwee fii euh, bi ma ñëwee fan sax fii laser volet bi un mètre dix laa ko waxoon donc lépp day day jël un mètre léegi man dama koy changer sama bopp hmm? léegi su ma sélectionné escalier bi damay def éditer boo ma defee éditer ma ñëw fii ma bës fii xam nga ligne bii nii dama koy indi fii bësaat daal di ñëw fii décalé arrêt bi gis ngeen arrêt bi ma décalé ko ba ba ci ligne bi nii ma bàyyi ko fi jeex na après ma def échappe après ma def échappe bu ma sélectionné escalier yi léegi bu ma xoolee mun naa yokk peut-être marché bi su ma ko yokkee day xaw a yokk tuuti kii mu neexee ma bàyyi ko noon ok su ma paree ma sélectionné ko ma déplacé ko contrôle ma jël fii daal ko yóbbu place teg ko fi léegi ma dem 3 de léegi yóbbu naa ko fii waaw nii la war a demee parce que palier bi dafa war a génn à porte-à-faux léegi moom léegi ma doog ko jël ma ne ko léegi yow ci réseau social bi nga war a tàmbale ma ma ñëw fii bu ma ko sélectionné étage lie mooy wàcc fii ma ni ko de chaussée léegi ci rez-de-chaussée bi la tàmbale ok amul solo léegi mur bi après dañ koy wàccee rek waaw ni la war a demee léegi fii mur bi dañ koy dindi fii lay commencé mur bi nii moom mur bi ci suufu ci suufu palier bi lay yam léegi loolu dinañ ko gérer après léegi dinaa sélectionné fenêtre bi ma dindi ko ma dind ko wala ma sélectionné ko ma wàññi hauteur bi hauteur bi dama koy wàññi def ko 0,40 fii nii hauteur d'appui bi ma def ko 1 met voilà su ko defee mu wàcc ci suuf ni voilà gis ngeen dama koy gën a wàccee sax ma sélectionné ko def ko quatre vingt ma def entrée moom bàyyi ma yóbbu 0,85 ma def 0,90 ok voilà léegi mi ngi ci suufu kii parce que li toilette visiteur la moom mi ngi ci suufu palier bi noonu lay demee après mur bi day ci suufu kii bi la war nekk ci suuf ci suufu fii la war a topp loolu nañ ko gérer après den ko gérer déjà daa ko sélectionné buñ ko sélectionné bu mu duggee ci paramètres yi nii ok étage d'implantation étage supérieur dama koy wax non lié non lié mu bañ ko lié ci kaw su ko defee bu ma ñëwee fii dinaa mën a tànn hauteur am bu ko defee deux mètres par exemple mu def entré gisoo wàcc na mais am na beneen façon boo xam ne moom lañ koy def ba mu ajustel boppam Nagel-Oldman Cosera ko rin siya. ವಾವ್ ನೀಲ ಹವ ವರ ಹವ ದೆಮೆ ಮೀರ್ ಬಿ ತಮಿತ್ deme ಲೀನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ನಿ ಯಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ನಿ ಯಪ್ dafa war a yam fii fii après ay opération booléen la ñuy def booléen donc pour que opération yooyu noonu ba pour que manipulation yooyu normal ba ci mise bi tamit bu mu ñëwaatee fii ci rez de bi ok rez de bi gis naa que ni fii escalier bi animu sax waaw c'est bon escalier bi mën naa ko wax léegi mu mu ba ba fan ba trois mètres su ma jëlee fii ma ñëw ci escalier bi ne ko léegi mu egg ci étage un bi mu xool lu muy joxe wax naa ko mu egg ci étage étage bi wax naa ko mu egg ci étage bi xaar ma ñëwaat fii 3D waaw noonu dina baax après dañuy teg fii suñu suñu kii léegi dinañ ko xaw a yéegal tuuti parce que am na marche bu dugg ci suuf léegi moom dañ koy yégal étage d'implantation bi ñu yokk ci zéro seize par exemple ñu xool gis ngeen am na nee marche ok ma wàññi ko tuuti zéro quinze wala zéro dix pour mu tegu mu tegu ci dal bi mun naa ko wax fii mu commencé par contre marche bi voilà bu commencé par contre marche bi c'est bon sommet de base ñu def zéro xool voilà nii la nii la waroon demee parce que warul am décalage décalage supérieur ci kaw donc warul woon am décalage supérieur parce que bu yeg see rek dafa ware directement fii nii tegu ci dal bi xam da ngay yéeg rek ànd ak dal bi léegi noonu baax na nii la waroon demee léegi ok amul danger après nañ teg dal bi comme que woonoon naa leen nu ñuy aménager après ni aménager rek tek yeneen bagage fii yëpp yomb na jafewul mi ngi ci première vidéo bi première partie bi mi ngi woon ci première partie bi léegi dañuy xool beneen opération léegi dañuy jël lii dañuy def ay copi léegi lii mën naa ko supprimer sélection bi moom dama bës fii daal ñëw bàyyi na ma bàyyi bësaatu ma dara ma ñëw ba fii ma bësaat après ma supprimer léegi dañuy def copier dañuy copier lii étage bi dañ koy copier ci kaw dañuy copier dañuy copier lii nii yëpp ci kaw après def tuuti modification ok copie yi dañuy def copie bu intelligent ñu def copie bu intelligent damay ñëw fi damay ñëw ci benn étage fii ma def clic droit ma def éditer élément par étage voilà ma bàyyi copier du ma copier dara damay bàyyi fii c'est action bi copier la damay copier de l'étage rez de depuis rez de bi ma copier ko ci étage 1 bi fii de l'étage n à l'étage n plus 1 léegi ma xool fii lan laa bëgg a copier léegi du ma copier lii yëpp damay bon su ma nee xam bàyyi lépp parce que lépp laa bëgg a copier mais damay dindi lii ma ni ko man mur yi laa bëgg a copier ak dal yi ak escalier yi te moo fi nekk ak obje yi su ma neexee bu teg naa ay obje lépp lu fi am rek boo ko bëggee copier nga sélectionné ko lépp lu am rek boo copier ba sélectionné ko boo ko bëggee copier nga sélectionné ko léegi su ma defee noonu lépp lu ànd ak lu dugg nekk ci biir miir yi day yéegaale ma def ok voilà gis ngeen jafewul après ma dindi lépp lu ci bokkul ma sélectionné lii ma dindi ko sélectionné lii ma dindi ko bës lii dindi ko jël ma dindi ko ma jël lii ma dindi ma jël ko ma dindi ko lii bu ne bu fii du fi def balcon ma dindi porte bi lii ma dindi porte bi fii amul port xaaral ma enregistré ma jël lii ma dindi ko mur bi doot fi amati yoon ma dindi ko et après lii lii lañuy lii lañuy régler épaisseur u dal yi épaisseur u dal dal dal bi lañuy plancher bi lañuy régler après parce que dafa yaatu ok mën naa ñëw directement fii ma bës bi ma ma sélectionné fii ma téye touche shift bi après ma bës bi bës bi ma jël bi ma ñëw ma sélectionné bi tamit sélectionné naa dal yi ci kaw yëpp damay changé épaisseur bi fii ok ma def 0,20 par exemple ma def entrée boo xoolee wàññeeku na quoi même bii ma jël ko zéro vingt entrées waxuma leen nag lépp zéro vingt la de ay calcul loolu calcul béton armé la waxuma kenn ne leen dal ay zéro vingt la bon fii fii waratul am dal dama koy dindi directement dañuy jaar ni yëg daal di ubbi bi dugg hmm? jafewul de ah noonu la war a demee après nag ñu def ay yeneen fii ñu ubbi loggia fii mën nañu def balcon après après fële ne dinañ ko defar mën nañ jëlaat lii léegi damay defaat même opération bi damay ñëw fii clic droit éditer élément par étage léegi man bëgguma defar lii yëpp léegi man dal dal yi la dal yi rek la bëgg a copier pour tëj fii dal yi la bëgg a copier pour tëj ko ok après ma def nan balaa loolu damay damay dalu kii ba pare balcon bi ma ñëw étage un ok fii balcon la quoi bu ma sélectionné lii bon daanaka sélectionné wu na daanaka baax na sax d'accord daanaka baax na sax daanaka baax na sax damay jël miir rek damay jël miir ma tracé fii rek directement damay tracé benn mur fii parce que après fii mur bi day mur bu ndaw lay doon ma sélectionné mur bi mooy e ci kanam fii nii étage lié bu mu bësee fii non lié laa ko def ma jël hauteur par exemple décalage zéro après ma jël hauteur ñaata zéro vingt entrée ma xool waaw fii après mën naa teg fii kii lii ma koy dindi fii mën naa fi euh, après kii garde corps noonu lay demee su ma ñëwaatee fii tamit ay loggia la quoi fii tamit day am mur hmm? fii dafay am mur maa ngi ci étage bi de léegi mur bi bu ma ko sélectionné ma ñëw fii non lié ma def euh, 0 fii ma daal di ñëw fii def 0 20 entre benn miir bu gàtt lay doon rek fii nii miir bu gàtt ma teg ci garde corps léegi pièce yaa ngi nii ci biir pièce ngi noonu ci biir boo xoolee bu ma sélectionné sama miir yi ci kaw day am décalage gis ngeen parce que miir yi ci suuf dama defoon décalage miir bi ci kaw day am décalage kon ñoom ñaar dañuy dañuy duggante dañuy duggante léegi loolu noonu dama koy dama koy gérer noonu laa koy gérer damay ñëw étage ma bës mur fii ma def contrôle A ma sélectionné mur yëpp léegi su ma ñëwee fii la bu ma ñëwee euh, fii décalage fii nii ma def zéro ma def zéro ma def entré ma xool ma ñëwaat 3D waaw dafay mel ne baax na yaakaar naa ko de léegi amatul ñoom amatuñu ay décalage dafa mel ni voilà baax na waaw après nag ma doog ma ma def opération bi ma waroon def sànq ma def clic droit éditer élément léegi man dal yi rek laa bëgg copier ma copier ko jële ko ci étage 1 bi yóbbu ko ci terrasse bi loolu laay def lii yëpp soxla ma ko kii ma def ok waaw nii laa ko bëggee woon ah. nii laa ko bëggee woon pour le moment su ma neexoon tamit ma jël ma jël ci kaw ma yëg ci kaw def benn dal kese léegi nañ def loolu bàyyi ma bàyyi ma def retour retour léegi ma dem terrasse ma dem terrasse ma tracé benn dal seulement léegi fii duñ def terrasse accessible dañuy def terrasse inaccessible wala inaccessible la sax parce que fii dañ ko baare garde corps la fii mënatuñoo yéeg yéeg ci kaw terrasse inaccessible la léegi damay ñëw dal ok bàyyi ma def dal zéro vingt vingt centimètres léegi ma daal di ñëw jël fii nii option géométrique parce que contour laa nekk di tracer bon bàyyi ma jël dal bi tracer ko à l'intérieur damay jël contouru terrasse bi rek contouru terrasse bi laay jël fii bàyyi ma continuer ko nii du ma du fii parce que fii dal gis ngeen dal lii béton armé la après bi lii nii mooy yeenu pergolaay ma ñëw fii directement ba fan il paraît que fii am na lu fi nekk bàyyi ma ñëw ba fii su baaxul ma delluwaat ginnaaw ma delluwaat ba fii ok ma daal def nii ñëw ba fii ñëw fii jafewul ma delluwaat ci point bi ma commencé woon wala ma dem 3D xool waaw kay nii baax na nii moo gën a nii moo gën nii moo gën a lii yëpp dinañ ko gérer après ah lii dinañ ko gérer fii yëpp dafa war a tëju dañ ko gérer léegi rek damay ñëw fi def fi porte euh, fenêtre pour loggia bi ak fii aussi mooy juum naa fii nii dal bi dafa war a ñëw ba ñii parce que daa war a protéger fii ma demaat terrasse dafa dee six bu ma ko sélectionné rek damay euh, mën naa bës ci point bii nii ci point bu ñuul bi ma daal di ñëw fii ci plus bi ajouter polygone après ma ñëw fii jël rectangle bi ma tracé benn rectangle rek ba fii ba nii yokk damaa yokk dal bi rek gis ngeen na waaw loolu laa def su ma neexee lii ma yóbbu ko ba neex damay bës fii ok mun naa jël arête bi ma jël arête bi ma décaler arête bi tuuti ba fii ba voilà ba ci miir bi fu mu yam ni su ma neexee su fekkee ne dafa kii gisoo dafa génn su ma ko bëggee delloo ma jël arête bi ma ñëw ba ci ba aligné ak fii miir bi ci point bi daal di bës mu aligné ok ma daal di ñëw fan étage 1 ma yokk foofu kii maa ngi enregistré dañuy enregistré ok lii lii ana fenêtre damay jël fenêtre bi hmm? daal ñëw fii def fi fenêtre daal di def fi fenêtre aussi ma dem porte te porte bi yaatu na de damay port loolu portu garage la porte coulissante mën naa jël porte coulissante mu jël a carreau un mètre vingt hauteur deux mètres dix deux mètres deux mètres vingt bon niveau de détail entier ma def ok voilà ma sànni ko fi mu nekk porte coulissante VOC ma sànni ko fii mu nekk portefeuille centre dessin yi ngeen di gis garaaw lii nii ñu ngi ci étage mais étage xam nañu amul garage moo ñëwee fii 3D waaw lii laa doon bëgg def léegi bu ma sélectionné fenêtre bi te shift sélectionné fenêtre bi hauteur d'appui bi ñaata la waaw un mètre baax na bon mën naa pour salon bi nii mën naa ko sélectionné ma ma yokk largeur bi peut ma def ko un mètre soixante wala sax deux mètres mën naa ko pousse nii damay bës rek clic gauche rek ma ma ñëw fii gis naa déplacer horizontalement gis ngeen ma daal di def bu fekkee ni dafa gaaw nag YouTube am na fonction boo xam ne boo ko jëlee day yéexal vidéo bi ok su ma jëlee nii waaw porte yi luy seen problème ok fii ok porte yi seen hauteur d'appui zéro la wara doon moo tax mu gën a suufe yi bu ma sélectionné bi ma def shift ma sélectionné bi ma ñëw fii hauteur d'appui fii nii ma def ko zéro entrée ok su ko ñu tolloo dal yi nii dal bi nii dal yi nii gisoo seen hauteur d'appui zéro la war a doon léegi damay ñëw ci étage un ma sélectionné benn dal non wala ma ñëw fii dal ma def contrôle A sélectionné sélectionné naa leen ñoom ñëpp ma ñëw seen hauteur d'appui nii ma def ko zéro entrée zéro la waroon doon léegi su ma ñëwee 3 de damay gis après que ni dinañ tolloo zéro entrée waaw kay nii la war nii la war a tëdde sama pare mën naa teg fii garde corps teg fii garde corps pare mën naa def fii ay acroter léegi fii bu ma sélectionné fii ma bës fii aret bi ma décalé ko gis ngeen fii nii lii la la décalé arête ma décalé ko ba nii voilà am bis bu ma defaree lépp lépp ba pare après damay teg acrotère yi ci kaw ci ci ni ci terrasse ci bordure léegi fii comme niñ defaree dal yi mën nañ def fii ay marche ah, après da def marche teg benn marche xaar ma def benn après li des ngeen def ko damay dem rez-de-chaussée ma jël dal léegi bu ma xoolee fii plus zéro quarante cinq la benn ñaar troisième marche ci biir ma jël dal après bon bi ma def ko zero quinze ñetti marche de zero quinze ma daal di ñëw tracé fii rectangle ma bàyyi ma def ñetti marche rek fii ma tracé waat ñetti marche directement léegi ñoom tracé naa leen léegi damay gérer seen décalage bu njëkk bi bu ma ko sélectionné hauteur d'appui bi ma yóbbu ko moins zéro quarante cinq pour xool deuxième bi bàyyi ma yóbbu ko moins zéro trente pour xool troisième bi bàyyi ma yóbbu ko moins zéro quinze pour xool waaw gis ngeen ci suuf la parce que hauteur parce que ci ci dal bi nii ci biir plus zéro quarante cinq la quarante cinq centimètres la digganteem ak ci suuf ci suuf si moo tax ma def ñetti marche yoo xam ne marche bu nekk quinze centimètres la bu njëkk bi mu commencé ko ci ci suuf si hmm. bu dee ci suuf si la commencé sax moins moins zéro la war a nekk moins zéro trente parce que moins zéro trente ak épaisseur bi donc deuxième bi day nekk moins zéro quinze bon mën naa ko def donc zéro voilà dina baax ni gis ngeen fii nii aligné na si suuf si moo nekk ni nga yéeg benn marche quinze yéeg benn marche muy trente après nga yéeg beneen beneen marche quinze muy quarante cinq daal di maaseek ci ci biir kër gi léegi fii après dama leen di bàyyi yéen tamit ngeen def benn marche fii nii bu leen neexee parce que fii mën nañ fi def benn dalage bu ndaw rek bu sew ku mu neexoon tamit mën nga ni fi nii danga koy yóbbu nii rek danga koy def à moins zéro quinze moins zéro quinze mu xaw a wàcc tuuti daal di bàyyi benn épaisseur cinq centimètres tuuti ci kaw suuf si fii aussi dañ xool après nu ñuy defee rampe pour garage def naa benn vidéo am naa benn vidéo bu ma def mais boobu français la ci biir ci sama ci scène bi nan lañuy ñuy defee rampe pour garage pour oto yi mën ci jaar ma enregistré léegi waaw nii yëpp baax naa su ma ñëwee xool fii léegi fii fii xam nga amul accès normalement ci salon bi mun nañ bàyyi mun nañ defi port pour mu am accès fii su ñu ñëwee rez-de-chaussée waaw noonu la waroon demee fii port la waroon doon waroon doon warul woon doon fonet pour mu am accès fii damay def 3D damay dem 3 de ma jël ma supprimer ko ok ma dem wuti benn port coulissante ma def ko foofu noonu mu demee rez de fii la porte la fi waroon def coulissante deux cent dix deux mètres dix largeur deux mètres vingt hauteur ma ñëw euh, porte ma dugg fii damay jël porte double coulissante bay ma euh, euh, ah anyway anyway anyway la ñu wax wala anyway bàyyi ma jël bii ma def si ay kii ok hauteur bii c'est 0,45 hauteur d'appui 2 mètres 10 mooy largeur bi fii euh, fii nii 2 mètres 20 mooy hauteur bi ma def ci poignée mooy bës yi def ci poignée ok niveau de détail 3 ma def ok ma ñëw door sama bon normalement benn coulissante la war doon parce que bi bi dina jafe pour mu coulisser ba fii de mur bi da koy mais bon comme euh, anyway amul solo léegi bàyyi ma sélectionné ko ma ñëw fii ok ma def ko benn benn rek la garaawal bàyyi ma def deux mètres pour largeur deux mètres vingt pour hauteur zéro quarante cinq ma def à carreau ma def ci poignée ma def ok voilà léegi moom gis ngeen flèche bi parti fii lay dem fii lay coulissé noonu moo gën sax ma dem 3D fan la war a commencer zéro ok hauteur d'appui zéro waaw nii la hauteur d'appui zéro la léegi fii ay marche lay am day marche marche marche benn petite terrasse lay nekk fii rek su ma ñëwee fii gis nga day marche marche marche damay sélectionner bi sélectionner bi sélectionner bi ma def contrôle T ma bës benn rek yóbbu fee après ma bës contrôle pour ma kopiye ko bon mun naa ko teg fii après ma bës benn ma ñëw fii def rotation ma bës ni daal di ñëw ni daal di koy cent quatre-vingts degré ma def contrôle T déplacer ko ma bës fii daal ñëw bës fii ok léegi ma bës bii ma déplacé ko bu ma bësee mën naa ñëw fii translation mooy déplacé ko fi bu ma jëlee bii ma bës bi déplacé ko fii bii ni arrêt yi day arrêt lay décalé bu ma bësee fii ma décalé arrêt bi ba fii la war a yam ma dekale arrêt bi ba fii bii ma décalé arrêt bi ba fii décalé arrêt bi mu yem fi fi am na benn turu bu ndaw ok ma jël bi ma décaler arête bi ba fi léegi ma dem 3 de xool ak saa nii la war a xaw a demee léegi donc donc ça veut dire porte bi warul commencer zéro zéro quinze la war a def normalement zéro quinze ma xool ma def enter xool léegi xaar ñu xool dal dalage bi fàtte naa dalage bi ñaata la woon plus zero quarante cinq ok léegi porte bi porte bi zero voilà voilà voilà noonu la de tolloo na de porte bi zero la war a commencé tolloo na ok voilà nii la waroon demee petit terrasse bi même chose fii day am marchand mais duma ko def déjà baax na noonu après yéen ku ko mën def na ko def day am marche am marche am marche bu mag fii muy ñett comme ne rek yi ngeen di copier fii l'essentiel mooy comprendre principe bi nañ def benn rampe bu ndaw fii benn rampe pour escalier am na ay méthode pour def rampe nañ jël benn méthode rek bu ma demee d' abord nan lañ vérifier étage un bi lan moo fi manqué ok étage un bi daanaka daanaka c'est bon nañ ko bàyyi nii après fii rek la ñuy régler dañuy bàyyi même configuration bi nañ bàyyi même configuration pièces yi am solo léegi fii day transformé nekk chambre bon fii ci kaw amatu cuisine espace familial la gis ngeen damay sélectionné ma dindi ma sélectionné lii ma dindi ko miir léegi dal bi nii dama koy sélectionné ma daal di tëj fii miir bi waroon ñëw ma bës fii bii ma tëj ko fii war am dara miir bi tamit amatu fi yoon ma dindi ko fii espace familial la mën jël lii ma supprimer ko ok mënoon naa jël lii ma dind ko après ma ñëw dal bi ma continuer ko ba fii après ma yokk fii ma bës ci point bi bu ma yokk damay bës ci point bi après ma jël plus bi ajouter polygone rectangle fii rectangle la ma bës fi ñëw yokk ok après fii mën naa fi def euh, daanaka sax fenêtre bi fii la nekkee kon mur bi dama koy dindi wala ma déplacer ko contrôle T dama koy déplacer fii la war a yem ma bës fii indi ko ba fii voilà mur bi damay bës ci poignée bi ni ma étiré ko gisoo étiré étirement ma étiré ko ba fi rek dal bii nii ma continuer ko ma bës fii glissé ko ba ba fii léegi fii nii day am benn fenêtre rek pour bàyyi bàyyi aération fii ak tuuti lumière rek ok bon est-ce que euh, après damay ñëw fii rek ma ma def fii kii bi ma demee 3D gis ngeen nii la war a demee nii la war a demee yéen a gis jafewul de voilà nii la waroon deme léegi nañ def ramp nañ def ramp fii après bu ma jëlee mur bi mur bi dafa duggante ak mur bi bu ma sélectionné mur bi gisoo damay def fii ma def zéro hauteur d'appui gis ngeen am na tuuti changement daanaka mur yi nekk ci kaw nii yëpp dama ko war a sélectionné waat damay ñëwaat ci étage 1 bi option mur ma def contrôle A voilà miir yëpp jël na après ma ñëw fii ma def zéro autodap fi entrée demee ne sànq niñ ko defee woon baaxul woon ma def entrée léegi miir yëpp delluwaat nañ ci normal nañ ni niir yi dootuñu duggante rapidement bàyyi ma teg fii marche ay dem si rez-de-chaussée bi ma jël marche bi bon bàyyi ma teg benn marche ci biti nii rek am solo ma wàññi épaisseur bi ma ko laalee nii ma wàññi épaisseur bi ok bon bàyyi ma def zéro dix léegi épaisseur bi ci suuf la wàññeekoo léegi kon bàyyi comme que dix laa def bàyyi moins zéro quarante ci hauteur d'appui bi ok mu wàcc mën naa bàyyi ne après mañoo ñoo def rampe fii kii xaw na kawe tuuti bàyyi ma wàccee ko léegi hauteur u porte bi deux mètres vingt laa koy def hauteur d'appui bi dama koy def moins zéro trente mu xaw a wàcc tuuti léegi ma xam ne am naa fi quinze centimètres am naa fi quinze centimètres ok léegi damay ñëw def benn rampe damay dem créer benn benn section rampe bu defoon cop ci rampe bi léegi yomb na damay ñëw euh, damay dem euh, fii damay tracé benn coupe fii damay ñëw ci rez de bi ma tracé benn coupe fii ci mur bi ma defi ma ma ma defi kii dañuy utiliser outil outil forme ah. ana outil forme outil forme bi moom la ñuy utiliser après outil ok damay ñëw euh, ma dem documentation non point de vue ma jël outil coupe léegi damay couper ci mur bi bon anyway peu importe mais bon su ma defee ni ma couper ni daal xool fi léegi naka la ñuy defee coupe bi damay ñëw fi bu ma jëlee coupe damay ñëw fi ma bës benn ni dama koy aligner ak mur bi parce que foofu la suñu extrusion bi di commencer ma ñëw ba fii ma bësaat léegi man may xool gis ngeen flèche bi su ma defee ni coupe bi nii lay xoolee demee ne waa ji dafa taxaw di xool fii mais su ma defee nii su ma demee côté bi gis ngeen flèche bi sama droite lay xoole day mel nit ki donc sama droite lay xoole ma daal di bësaat benn mu tuddee ko coupe C1 C1 su ma ñëwee fii xaar ma enregistré bu ma ubbee fii gis naa coupe C1 C1 ma def clic droit cubrir voilà gis ngeen bi bu ñëwee yii nii sax damay wàññi épaisseur bi mais garaaw oto bi bu ñëwee nii lay def yéeg oto bi bu ñëwee nii lay def yéeg porte bi fii la yam dafa mel ni waa bi porte garage baa ngi nii il paraît quinze centimètres su ma jëlee ligne bu ma bësee fii damay vérifier rek quinze ou cinq fii lay commencé dix dix la garaawul ok mën naa jël outil ligne d'abord ma tracé ma ma bon garaawul mën nañ dem directement damay ñëw fii dessin ma dem forme non forme forme après damay tracé librement sama forme xam naa ni nii la war def damay def nii ñëw ba ci porte bi ni après ma ma ramp nag dañ koy calculer ah tey du ma fi nekk di calculer la ramp bi nuñ koy calculer mais damay def à peu près rek tracé naa xam naa ne ramp bi triangle coupe bi triangle la lay jox tracé naa forme bi ma demaat rez de wala ma def étage moo boo xoolee sax ñu ko tracé baaxul dama waroon yéeg ba ci kaw il fallait que ma xam quinze centimètres laa war a yéeg léegi damay ñëwaat ci coupe bi ni dama koy supprimer fii laa war a commencé yéeg quinze centimètres dama ñëw outil forme fii lay commencé bés fii ma yéeg ni gisoo quinze centimètres distance quinze mën naa tàppe quinze quinze wala zéro quinze bu dee mètre laa nekk zéro quinze ma def entrée ok ma daal di def nii rampe nag longueur rampe dañ koy dañ koy calculer de du n'importe comment après ma ñëw fii laa commencé woon su ma gisee nii ma bës voilà forme bi def naa ko mu ñëwaat 3D waaw nii la waroon demee gis ngeen su ma ñëwee nag may bës fii ci surface bi mu bësaat ko gisoo daal di def nii pousser tirer pousser tirer pousser ko tiire ko tiire ko ba fii bon mën naa ko yemale ba ba fii ma bës bàyyi nii lañuy ñuy defaree jafewul ok bàyyi ma teg garde corps ñaari garde corps vite fait tey objectif bi nekkul ñu dugg nag carrément ci garde corps yi kii mais damay jël outil garde corps mën naa ko defee en 3D ok garde corps yi étage d'implantation premier étage la zéro niveau zéro non niveau zéro vingt parce que mur gàtt yi dama ko yóbbu woon ba zéro hauteur zéro vingt la donc mu commencé zéro vingt ma ñëw fii ok amul calque ñi xam calque comme AutoCAD damay def choisir calque fii nii yi nii calque manquant ma jël garde corps def ok mat ñëw nag tracé mu ñëwee ba ci mur bi nii rek trait bu jaune bi nekk fii moo may wan ni aligné na ak mur bi ma daal di bës daal di bësaat bon tracé naa garde corps bu ma garde bi neexut damay dama koy sélectionné ma ñëw ci flèche bii ni bu ndaw flèche bi laa wax de ma bës fii mu ñëw fii ban type de garde corps moo ma neex quoi bàyyi ma jël garde corps en avec fermeture ma def double clic bii sax dafa gudd damay jël beneen damay ñëwal bi ma jël bi garde corps envers ma def double clic waaw bii moo tane directement du ñu wu attardé wu trop ci garde corps yi xëy na beneen yoon dinaa def euh, cours boo xam ni ci garde corps yi lay wax complexe wala ci ci kii jël temps wala ci mur rideau yi wala ci ci escalier complexe ma jëlaat garde corps damay jël ñëw ci flèche bu ndaw bi waaw ma jël ko ni ma daal ñëw zero vingt parce que miir bu gàtt bi zero vingt la woon ma bës fi oh amul calque toujours waaye ah, ma ñëw fii garde corps ok calque tamit beneen cours la calque yi c'est pas voilà affaire bu jaune bi mooy wan ni aligné na ak mur bi ma bës bësaat aparte na sa magado corny ಓಕೆ ಬಾಯಿ ಮಡ್ಡುಗು ತೂತಿ ರೆಕ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬುಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಡು ಕೋರ್ ದಮೈ ಡೆಫ್ ಎಡಿಟೆ ಬು ಈ ಮೋ ಮನೆ ಅಕುಲ್ ದಮೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬು ಬುಂಡಾವ ಬಿ ಮಸಿ ಪಿರಿಮೆಕು ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಸಿ ಪಿರಿಮೆಕು ಮೆಮ್ ಶೋಸ್ ಫಿ ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪಿರಿಮೆ ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪಿರಿಮೆ ಸುಮ ಪರೆ ಮ ಡೆಫ್ ಎಸಾಪ್ ಎಸಾಪ್ ಲೈ ಡೆಫ್ ರೆಕ್ ಮೆಮ್ ಶೋಸ್ ngೈ ಡೆಫ್ ಫಿ ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿನು ಫಿ ಬಸ್ ಎಡಿಟೆ ಮ ma sélectionné dindi ko ma sélectionné dindi ko formation cours wolof yi nag léegi mu commencé suñu salle de formation yi ku mu intéressé rek après da ngay ñëw après ma def étape commencé inscrire dugg ci formation yi en wolof wolof plus français a dinañ dem ba jëmmi jamono niñ def anglais incha allah fii aussi mën naa fi def fenêtre ah pour mu am aération ci biir noonu ba may dem ci étage 1 fii dama fi ubbi dara ok dama ciy teg fenêtre bi ah dama ciy teg fenêtre bi ah ma ñëw 3D fii mën naa guddal fenêtre bi mën naa ko jël mu commencé 05 cinq plus cinq plus 20 égal 1 non fii nii hauteur bi laa bëgg a wax waaw largeur bi mën naa ko jël un mètre cinquante pour plus d'aération hauteur bi soixante dix ok pour mu tolloo yi li yëpp mën na nekk bu ma demaatee ci étage bi toujours ma xool ah dina baax ok porte bi porte salon bi maintenant bu ma ko jëlee dama koy damay bës rek ma déplacer ko fii fii la war a nekkee mën na nekkee fii boo yéegee rek sano baa ngi nii léegi fii dafa sori mën naa jël miir bi ma jël poignée bi ma étirer ko delloo ko fi fii genre dégagement lay doon direct rek léegi bu ma jëlee lii ma combler vide bi nii sélectionner dal bi parce que ci suufu mur bi am woon dal ay poutre lay am comme que ñun suñu cas defuñu poutre ma comble vide ok waaw nii lay deme léegi ñu dem gérer ci ginnaaw dañuy ñëw ñu defar fii tuuti rek moo déjà mur bi mën na mën na tëb mur bi mur bi mën nañ ko génne mën na fi bañ a am yoon parce que après mur bi nii mooy tëj tuuti mur boobu mooy tëj après léegi bii dañ koy arrêté fii ci suufu escalier bi ok ma dem option non dessin ma dem opération élément solide ok noonu laay def damay def benn genre soustraction d'abord voici l'opération l'opération damay def soustraction avec extrusion vers le haut cest damay def soustraction lii ñi dama koy dindi le reste sera extrudé vers le haut quoi on essaie il y toujours une cible et un opérateur not cible c'est le mur donc damay sélectionner mur bi moom mooy suñu cible ma def ko ajouter comme cible moom lay moom lay def opération opérateur bi escalier bi la donc damay jël escalier bi ma sélectionné naa ko ma def ko ajouter comme opérateur après jël naa comme action soustraire on essaie ñu essaie soustraction avec extrusion vers le haut non seulement dama koy soustraire mais aussi dama koy extruder pour que mu taqaloo fi ma def exécuter pour xool voilà exécuté na maintenant boo xoolee escalier bi euh, yëg si def fii après nan laay def naka mu boy ok donc deuxième commande pour euh, mur bii ni même chose cible ma def ajouter comme cible le mur après ma jël escalier bi ma def ko ajouter comme opérateur toujours euh, élément bi nga xam ne moom la def euh, opération moom mooy nekk cible l'élément à modifier après même opération je vais euh, exécuter comme ça nous avons le mur dama dindi mur bi ñu xool mur bi ni ajouté wu na bon à peu près léegi fii dafa am trou parce que mur bi dama yokk hauteur bu ma yokkee hauteur sax du mës a dépasser fii léegi dama koy def 3 mètres pour xool ma def entrée en tout cas bu laalee fii du ko dépassé boo xoolee bu ko laalee du ko dépassé donc moom mën naa ko yóbbu bala ba un mètre mën naa ko bàyyi fii sax lii même c'est une jolie décoration mën naa ko yóbbu voilà 3 mètres euh, mètres cinquante bani bon mën naa ko bàyyi trois mètres voilà mën naa ko bàyyi trois mètres léegi après fii dañuy taj mur bi nii dañ koy tëj normalement fii nit war fi mën a xaj donc lii dañ koy jël ñu arrière ko tuuti bon mën nañ ko arrière ba fii léegi mur bi bu ma demee à l'étage mu xëcc ko fii léegi mur bi décalage am léegi dama koy ok donc c'est bon léegi damay dem à l'étage ok mur bi ma ñëw ma étirer ko mu wàcc ba mu ñëw ba place ba fii ma dem 3 pour xool voilà bi aussi mën naa def pare après tout comme mën naa dindi décalage bi fii bon damay def no lié ma wàññi ko ba trois mètres quarante c'est bon bii nii voilà bon dama def retour parce que c'était bon comme ça mur bi si boppam mu lay pousse ba nii je dois même l'enlever voilà nii la war a yam ok c'est tout pour aujourd'hui euh, demain pas demain l'autre euh, dimanche inchallah on fait la finition inchallah peinture tout ce qui est peinture tout ce qui est euh, sol là tout ce qui est lépp luy euh, kii rek euh, jardin bi def ay fleur ay garab affaire yooyu noonu daal di defar euh, acrotère bi daal di tëj fii si ginnaaw daal di defar mur de clôture yi après pour euh, jeexal si peinture bi incha allah.